أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ak yéen ci téere yàlla bi subhaanahu wa taala toll ci suratul baqara di jël tey aaya 185 mu nekk benn aaya bu ñu sunu boroom subhaanahu wa taala di jàngal juróom-ñaari mbir bi ci njëkk mooy fadlu shahru ramadan wa fadlul qur'an ngëneelu weeru koor ak ngëneelu alquraanul karim mbokk yi dana doy rek nekk ngëneel ci weer al weeru koor doy na ci ngëneel li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne iza jaa ar ramadan futihat abwaabul janna wa gulliqat abwaabun naar wa sudifat ash-shayatin rawahu muslim ki yàlla yónni woon ci ñun nee na su weeru koor ñëwee duggee yàlla day ubbi bunti aljanna yi tëj bunti safara ñu yeew seytaane yi kon lii rek doy na ci ngëneel ci weeru koor bu fekkoon ne weeru koor lii rek la ci jullit di jëlee doy na muy ñu tëj bunti aljanna ubbi bun bunti ñu tëj gi ñu tëj buntu safara tijji bunti aljanna yeew seytaane kon nit ñi rek waroon lii rek waroon naa doy nit ñi yàkkamti weeru koor ñëw ñaareel yonent bi nee na man saama ramadanan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi képp ku woor weeru koor dara taxul nga weer dul bëgg tiyaaba yonent bi nee na yàlla dina la jéggal sa bakkaar loolu ci ngëneel yi la bokk ñetteel ci ngëneel yi wa man qaama ramadan imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi képp ku taxaw naafila weeru koor dara taxul nga naafila lu dul bëgg gëm yàlla ak bëgg tiyaaba yonent bi nee na yàlla jéggal la kon ñetti yooyu dafa bokk ci ngëneelu weeru koor ñaareel li ñuy jële ci aaya yi mooy wujubu siyaami ramadan woor weeru koor dafa war saa yoo jàngee ci téere fiq ñu ne la wujub mooy lu war la war weeru koor kon dafa war kan la war mu ne alal mukallifiina alal mukallafiina ci ñi ñu toggug jëf mukallaf kan mooy mukallaf ci lislaam dafa am koo xam ne dañ koo togg jëf kooku lañ sharia naan mukallaf mooy ku ñu sant jëf kooku mooy kan huwa moom al muslim day nekk jullit avant dara mukallaf day nekk jullit al aqil mu am xel al baalig mu meseur ñett yi bu dabee ab jullit moom mooy mukallaf jullit la am na xel meseur na ku meseur ci l'islam bu dee jigéen bu indisposé rek meseur na bu gisee mbaax meseur na bu dee góor bu naqam amee kawar wala mu génti sëy bu njëkk ba téere fiq yi dañ ko doon natt ci dix-huit ans tey da ngay gis seize ans am doom comme léegi dootul nekk ci ay âge dañ koy bàyyi ci nattukaay yi nga xam ne moo gën a jege comme bu gisee baax da ngay gis léegi seize ans am doom seize ans te bu njëkk ba lañ doon wax dix-huit ans kon léegi nattukaay yi dafa soppeeku kon nit su mesuré rek ci lislaam nekk mu kàllaf am xel ma salaamati al mar'a min damil xaydi wan nifaas bu dee jigéen la mu set wicc ci deretu wasin ak deretu mbërëg mu kàllafa nga kii dafa war a woor kii moo war a woor ñetteel ci lu ñuy jëlee ci aaya yi nekk sunu kanam benn aaya bi mooy arruxsatu lil marid alladi yaxaafu taaxir bariuhu yolomal nañ may nañ ku feebar koo xam ne yaakaar nañ ne dina wér wala may nañ ko mu dog moom dafa xam ne du mun a woor wéram day yéex a ñëw kon may nañ ko mu bañ a woor wala su wooree feebar bi day yokku aw ziyaadatu maradihi may nañ ko mu bañ a woor wal musaafiru masafata al qasri ak képp kuy tukki distance su wàññi julli kooku tamit may nañ ko mu bañ a woor kon ñett ñi may nañ leen ñu bañ a woor ku wér koo xam ne yaakaaruñu ne dina wér fii ak ay fan kon may nañ ko mu dog koo xam ne tamit dafa feebar ñu xam ne bu wooree feebar bi yokk may nañ ko mu dog koo xam ne dafay wo dafay tukki tukki distance bu ñuy wàññi julli may nañ ko mu dog ñeenteel li ñuy jëlee ci aaya bi mooy wujubu qadaa'u ala man aftara li uzrin may nañ dafa war farataal nañ sant nañ ki dogoon weeru kooram ki amoon ngant dog bu koor gi jeexee mu fay wujubul qada waral nañ fay kan ala man aftara ci ku dogoon li uzrin ngir ngant aaya bi moo ne fa iddatun min ayamin uxar ay fa alayhi war na ci moom qadaa mu fay ayamin uxra yeneen bis bi adadi ma aftara ci limu la mu dogoon nga dogoon juróomi fan juróom fan ngay fay ñetti fan ñett ngay fay loolu dañ koy jëlee ci aaye bii ñu war a jël juróomeel mooy yusru sari al islaami wa xululiha min al usra min al usri wal xaraj yomb téef bu sharia yomb da ngay dégg Sénégal yi tax kenn mënu fee jaamu yàlla mooy da ngay dégg ñu naan yéen seen diine ji dafa tàng diine ji dafa tar non vraiment ji jaamu yàlla dafa metti loolu ngay dégg ci dëkk bi loolu du dëgg islaam sharia dafa yomb yàlla li yomb la nu sant kon moom lislaam dafa wéet dafa seppi dindi lépp lu jafe lépp luy mettit islaam daf ko dindi lan laa wax léegi léegi sànq ci ku feebar lan laa ci wax ay dog lan laa wax ci kuy tukki lan lañ waxoon barki démb ci ku ëmb ci ku ragal doom ji mu ëmb lan lañ waxoon ki ragal doom ji muy nàmpal kon kay lislaam méttiwul ana métti bi bu la yàlla ne woon fal force ñu ne waa ji day dugg sal salle d'opération ñu ne na woor ok moo gën a métti ndaw si day matu ñu ne na woor loolu kay ko kay waaye xoolal yooyu yëpp sunu boroom subhanahu wa taala da koo dindi yombal mbir mi ba mu yomb moo tax sharia dafa yomb lépp luy métit lépp luy jafe yàlla da koo dindi moom yàlla moo ne wa ma jaala alaykum fi diini min haraj diina ji lépp luy coono métit dama leen koo teggil wa qawlu rasul yonent bi nee na diinullahi yusrun yonent bi nee na diina yàlla ji dafa yomb boo jullee fajar kañ ngay julliwaat deux heures wala distance bi xoolal diggante boobu li fi nekk ci ay waxtu suñ la ne woon bul génn jàkka ji nag toog fi ba deux heures nga julli tisbaar ñu ne la toog fi ba takkusaan nga julli gee ñu ne la fanaan fi wala takk soxna dana metti de ay xoolal islam dafa yomb mbokk yi moo tax dëgg-dëgg ñàkk dégg diine rek moo tax nit ñi nekk ci mbedd yi naan diine ji diine ji diine ji diine ji diine yenn saa yi sax nga dégg ku lay adresse naan la yéen seen diine bi dafa tàng mais ñu baax ngeen mais da ngeen a tàngal nag da ngeen a ëppal loo ko loo wax ma nga ëppal loo def lan lan nga ëppal ah yàlla yërëm beneen asar mu ne wa qawluhu li ashaabihi moom yonent bi da doon wax sahaaba yi yassiru wala tuassiru yombal leen bu leen jafeel wa bashiru wala tunaffiru bégale leen bu leen dàqe kon diine ji texte yi yëpp ci yombal lay wax kon diine bi dafa yomb aaya bi ñu ñu war a jël léegi di ngeen xam ne diine bi dafa yomb yàlla jafewu ko sunu borom subhanahu wa taala du teg ay jaamam lu metti juróom-benneel ci li ñuy jële ci benn aaya bi mooy mashruiyatu yoonal nañ at takbiiru di kabbar laylatal iidi guddik iid suba la ñuy julli korite tey jii nit ñi dañoo war a di kabbar wa yawmihi ak ca bëccëgu julli ga buñ nee weeri feeñ na tey suba la korite nit ñi dañu war a fanaane kabbar ba suba ga ca julli ga wa haza takbir kabbar yooyu juz'un benn xaaj la li shukri ni'matil hidayati ila al islam sant yàlla mi ñu baaxal ba ñu jub ci lislaam mbokk yi ndeke ñun ñëpp ñu war di sant sunu borom lañ boo xoolee dëkk bi ni mu mel tey suñ nee diw ñu ne góor jigéen la diw franc-maçon la diw bandi la diw saay-saay la diw lekkatu riba la diw fecckat la diw njaalookat la yow ku la gis sa xel du dem ci loolu doo sant yàlla ñu mel noonu sax suñ la gisee dañ lay nuyu ñaari loxo ne la mbaa yaa ngi ñuy ñaanal mbaa yaa ngi may fasaale kon yow santal yàlla yow ba lan nga def ba groupe googu yàlla génne la ci loo joxe dangaa def demande lettre ah léeg-léeg ndeysaan stade bi bu amoon bëre wala mu am football wala mu am ma romb mbooloo mi jëm si jàkka ji dama naan alhamdulillahi allazi afaana mimma btalaahum maa ngi sant yàlla mi ma nattuwul ba ma bokk ci lii wala làmb ji tey suñ ne woon tey la combat Balla Gaye ak kan yéegi yow doo dem doo dem de ah dangay dem dangay dem dangay dem yow santal yàlla sant leen yàlla am na ñoo xam ne ban heure la ñuy dem bu ñu jullee fajar yoo xam nga luy sa problème noo julli jee fajar jàkk noo julli jee tisaar noo julli taksaan tey jànguma alxuraan si man tey jii est-ce que kii yow loolu mooy sa problème tey santal yàlla ni nañ leen sant yàlla dañuy xeeb de waaye am na lu ñu yàlla may de xeeb nag nan sant yàlla kon ndeke nga koor ba koor jeex ngay kàbbar ndeke loolu day wane ne benn xaaj la buy wane ne yow yaa ngi sant yàlla xool dëkk bi tey ni mu mel mon gi saay-saay gi caaxaan bi mais yow xëy na xëy na bokkoo ci santal yàlla jar na sant yàlla yenn saa yi sax nit ñi dañ lay gis naan yéen yéen lu bon li lu ngeen ci xaar lu ngeen ci wax wax leen ci wala nit ñi dam yaakaar na yéen mun ngeen ko fay dindi kon nan sant yàlla mbokk yi juróom-ñaareel ci lu ñuy jële ci njëriñu aaya bi ñu war a jël mooy attaat hiya sukuru topp yàlla yëpp yi ñuy def du lenn lu dul sant yàlla julli koor jàng alquran déglu ak tafsir naafila saraxe loolu yëpp boo ko tënkee lan lay tekki mooy da ngay sant yàlla attaat hiya sukru topp gi ngay topp yàlla ndeke yaa ngi koy sant fa man lam yuti illaha wa rasulahu képp ku toppul yàlla ak yonent walam yakun shakiran nekkoo kuy sant ku toppoo yàlla toppoo yonent yow santoo yàlla santoo yonent mi fa yauddu ma shakirin kenn du la konte ci ñi sant yàlla tabaraka wa taala lam yakun shakiran fa yauddu ma shakirin nekkoo kuy sant yàlla kenn du la booleeg ñi sant yàlla kenn du la ci compte kon ixwaan yi mbokk yi juróom-ñaari njëriñ yi moom la ñuy jëlee ci benn aaya bii ñu fas yéene jël ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سنو بروم سبحانه وتعالى نينا شهر رمضان ويركور هو الشهر التاسع من شهور السنة القمرية mooy weeru juróom ñaar juróom-ñeenteel ci weer yi aju ci jan weer wi ñun sunu jaamu yàlla ñu ngi ko jëlee ci weeru at yi weer yi ñu ngi ko tënk ci weer wi tënkuñu ko ci jant bi calendrier islam mi ngi dépendre ci weer wi dépendre ci jant bi calendrier bii ngeen di wax janvier février mars avril jant bi la bii ñuy wax muharram muy calendrier musulman mu ngi dépendre ci weer wi dépendrewul ci jant bi hmm? saxru ramadan nag ci weer yooyu la bokk weeru weer wi ci la bokk yàlla mu ne saxru ramadan weeru koor lan mooy ramadan maaxuuzun min alramd ñu ngi ko jëlee ramdu saim iza xarra jawfuhu min al atash ramadan baat bi mooy suuf su tàng wala nga ni doomu taal bu tàng bu nit boyalee ay mat taal safara këriñ ba mat yi jeex wala këriñ gi jeex day des doomu taal bu tàng jër su ci nit dëggee tànkam nu ngi koy def day ñori der bi loolu mooy ramadan loolu lañ tuddee weeru koor weeru koor noonu lay def ay bakkaar boo ci nekkee ba mu jeex boo ci génnee day ñori sa bakkaar yépp nit safara si di ñoree sa deru tànk bi wala loxo bi nga ci dugal wala fi mu laal benn partie bi mu laal sa yaram noonu muy ñoree der bi noonu la weeru koor di ñoree say bakkaar noonu dañu tuddee ko ramadan yàlla mu ne weer woowu tudd ramadan di dindi ay bakkaar di ko ñori ci doomu aadama nee na su nit wooree day yëg tàngaay ci biiram ak mar loolu mooy weeru koor loolu mooy ramadan moo tax ñu tuddee ko shiddatul xar yàlla mu ne weer woowu allazi mooy weer wi nga xam ne unzila wàcce nañ fii ci moom alquran téere boobu nga yor sa loxo bu tudd alquran haadihi l aaya aaya bi fadluhu ala gayrihi min saairi suhur li tax weeru koor nekk ngën gi weer lan la mooy li ci alquran wàcc weer yépp alquran mooy weeru koor mooy seen sang ni nit ñi amee sang kan la yonent yàlla muhammad mooy gën gi mbindeef ajjuma mooy ngën gi bis weeru koor mooy ngën gi weer laylatul qadr mooy ngën gi guddi alquran mooy ngën gi téere laylatul qadr mooy ngën gi guddi yépp ay dalil la ci quran ah màkk mooy ngën gi dëkk nit ñi ki ci gën mooy muhammad diine yi li ci gën lislaam weer yi li ci gën weeru koor bis yi bi ci gën ajjuma xayru yawmin talaat fihi sams yawmul jumaa guddi yi bi ci gën laylatul qadr inna anzalnaahu laylatul qadri xayrun gis yow ma araf kon su ko defee yàlla subhanahu wa taala mu ne ramadan weeru koor allazi bi nga xam ne unzila wàcce naa wàcce naa ci fii ci moom alquran alquran nee na haysu anzala fiihi haysu unzila fiihi alquran ci la yàlla wàcce alquran wa zalika loolu nag mu ngi nekkoon fii laylatul qadr ci guddig laylatul qadr da ngay dégg yàlla mu wax ci alquran ci xaamimi inna anzalnahu fi laylatin mubaraka maa ngi ko wàcce ci guddi gu am barke guddi googu ban guddi la mooy laylatul qadr inna anzalnahu fi laylatin mubaraka kon laylatul qadr mooy ngën gi guddi mu ne inna anzalnahu fi laylatil qadr mu ne anzala unzila jumlatan wahid yàlla wàcce na alquran globalement boo ko boolee téere bi yëpp 114 saar yi ci benn place ci benn barab bu tudd lawxul mahfuz mu jëlee ko baytul izza yóbbu ko lawxul mahfuz min samaai dunya ci asamaan bi nga xam ne moo tolloog adduna bi mu denc ko foofu su dara waree wàcc yàlla yónni jibril mu jël li nit ñi soxla mu indil ko yonent bi étape par étape étape par étape ba alxuraan bi yëpp daal di wàcc daal di jeex mais globalement ñu ngi ko wàcc ci baytul izza baytul izza lañ ko jëlee ah di ñi ko indil moo tax mu ne yàlla jëlee na alquran bi ci lawhul mahfuz ila baytil izza fi samai dunia alquran bàyyee ko ne lawhul mahfuz globalement ñëw baytul izza baytul izza mu ngi asamaanu premier septième asamaan bi asamaan bi nga xam ne moo dend ak adduna bi moo tax ñu tuddee ko asama samaau dunia après ñu koy wàcce tuuti tuuti muy wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li njëkk a wàcc mu nekk ci weeru koor fi ramadan ndax yàlla subhanahu wa taala mu ne alquran bi wàcce naa ko hudan muy njub linnaasi neel nit ñi kon nit ñi alquran lan la pour ñoom mooy lu leen di jubal ci suratu baqara zalika alkitab laa rayba fiihi hudan lil muttaqin fii yàlla mu ne hudan linnaas ay haadiyan da leen di jubal ila ma fiihi ci li nga xam ne nekk na ci maalahum lu leen di amal njëriñ saadatihim fi daarayni doomu aadama yi li leen di baaxloo ci àdduna di leen texeloo àllaaxira yàlla mu ngi ko def ci alxuraan moo tax du ñu mun a jub lu dul dañoo topp alxuraan képp koo topp te kooku toppul alxuraan yaa ak moom yëpp da ngeen di sànku. benn misaal laa leen di jox dañuy gis fi sunu experts yi sunu savants yi sunu ministres yi députés yi nangam yi pourtant dañuy jàng. dañ leen di wóolu jàng jox leen diplôme ñu ñëw mais lan moo tax du ñu jubal parce que jànguñu alxuraan ndax dañuy sàcc rek Sénégal problème mu milliards yi ñu am yëpp lan la jànguñu alxuraan ndax dañuy sàcc rek zalikal kitaabu laa rayba fii hudan alxuraan mooy moom ngay jàng nga xam ko ñu jiital la fenn bu nit ñi nelaw yow doo nelaw ñu dénk la leen jàng leen histoire Omar ibn Abdul Aziz président de la république la mu réunion ba pare ku def conseil des ministres ministres yi génn ñibbi mu am gan ku mu recevoir audience mu fay lamp bi kooku ne ko ah lu tax mu ne ko pétrole bi pétrole li jullit yi yow pro- sa problème ngay wax si ak man man ak yow sunu problème la ñuy wax kon amuñu droit taal yëfu jullit yi pétrole la jullit yi fan ngeen di jëlee te président bu mel noonu ci àdduna dafa amoon ministre bu mu fal ministre bi ci ginnaawam lay toog fii ci ginnaaw lay toog bu toogee nii jàkkaarloo gaa yi di wax ba caag rek yi neen saa yëf yi neex rek waa ji rëkk ci ginnaaw gi xëcc gësëm su gestoo mun a ko ittaqillah ragalal yàlla loolu rek la kookoon moo doon ministre moo doon moo doon fonction moo tax Omar ibn Abdul Aziz bu nit ñi doon nelaw mu jóg di jooy benn bis dafa jooy jooy yu metti jabar ji yeewu jooy doom yi yeewu di jooy ndax yërëm ko wa lamma sami'ahumul jiraan yabkuun jaalu yabkuuna maahum ba leen dëkkandoo yi déggee ñoom ñoom ñuy jooy kër gi dëkkandoo yi yeewu ñoom it toog di jooy dëkk bi yëpp di riir benn waay ne ko yarhamuka allahu ya omar ma haza al buka omar yal na la yàlla yërëm looy jooy mu ne ko dama tëdd rek sama xel dem ci àllaaxira fariqun fil janna wa fariqun fi sair ñii nekk aljanna ñii nekk safara mu ne xamaguma fan laa bokk ci ñaari mbooloo yi xawma ci ban laa bokk loolu moo tax may jooy la ilaha illa allah la ilaha illa allah ñun xam fan lañ bokk ku nekk fi nga toog fan nga bokk ci ñaari kuréel yooyu te xoolal ñooñu nu ñu mel xoolal ñooñu nu ñu mel nu ñu baaxee ñoom ñooy xalaat ñoom fan lañ bokk démb sunu xutba jumaa moo doon abdullah ibnu mas'ud tëdd feebar usmaan ibnu affan seet si ko ne ko ma tashtaki looy jàmbat mu ne ko zunubi samay bàkkaar rek samay bàkkaar rek laa tal ma tastaki mu ne ko zunubi samay bàkkaar maza tarju mu ne ko rahmatallah waaw loo yaakaar léegi mu ne ko yërmande yàlla rek xoola ñooñu ak ñun suñu bopp kon alquran hudan linnas day jubal nit ñi ci lu leen di texeloo ci àdduna di leen texeloo àllaaxira wa bayinatin min alhuda walfurqan wa bayinatin day leeral jamu bayina walhuda al irshad day leeral min al huda di jubal di orienté al irshad wal murad mu ne liñ ci jublu ann al quran nazala dafa wàcc haadiyan linnaas di jubal nit ñi wa mubayinan lahum mu leen di leeralal sabil al huda yoonu njub mu waddihan muy leeral faram-fànce tariqal fawzu yoon wi nit di jaar pour texe wan najaat pour mucc faariqan lahum bayna al haq wal batil di leen tàqale lan mooy dëgg lan mooy fen fi kulli suunil haya ci mboolem li ëmb dund gi yëpp alxuraan dafa wàcc di leeral lii léegi nag bu fekkee alxuraan lii mooy mission nit ñi teg ko de côté def ko téere barkeelu bala ñu koy jàng nit dee bala ñu koy jàng am ku tiit comme temps yi fu ñu toll ñi naan audit day am audit du am nga gis gars yi commencé kaa leen wàcceel ma alxuraan sama kër forom bu kaamil jënd ñii di ko jàmb di naan ñii takk ci ndigg yi dënn yi ñii di ko orné seen bibliothèque yi fekkee loolu lañ ko def ban njëriñ la ñuy amal lan lañ wax léegi mooy anna haza alquran alquran bi nazala dafa wàcc haadiyan linnaas di jubal nit ñi kon bu ko nit ñi bàyyee fan la ñuy jubeeti di topp ñoo xam ne munuñ ci lii xarf nga gis kilifa moo tax Sénégal la ilaha illallah wa rabbul kaaba Sénégal nii rek la mun a mel kilifa diine bu jàngul alquran ci Sénégal rek nga koy gis kilifa diine bu jàngul alquran te te te te lan mooy di kilifa diine diine suñ ko waxee fan la ci nit ñi seen xel ci li ñuy dem mooy minimum mooy kilifa diine bi war naa mën a jiite nit ñi julli wala mais kilifa diine bu jàngul alxuraan Sénégal da nga koy gis kii de kilifa diine la ah ñoom ñoo ko wax ñoo ko wax de parce que loolu lañ ko toppee nee nañ waaw nga gis mbir yu doy waar moo tax nit ñi looy gis ku woote am ay taalibe ku woote am ay taalibe parce que lu tax li waroon orienté nit ñi ba ñu xam vrai ak faux loolu moo yàqu loolu moo yàqu anna haza alquran nazala haadiyan linnas di jubal nit ñi waaye wa mubayinan lahum sabila alhuda mu leen di leeralal lan mooy yoonu njub lan mooy dëgg moo tax ku bàyyi dëgg kilifa gu fi bàyyi dëgg rek ñu jàng alquran dañuy xam ne nekkoo ci dëgg benn misaal bu ndaw alquran ñaata jabar la wax la nit am ñeen kon ki yor njaga njaay loo koy wax alxuraan minimum sax alxuraan dana ñeent nga gis waa ji am juróom-ñaar léegi yow te kooku nee nañ sa kilifa la war nga ñëw ne ko ah sëñ na nga ne ko alxuraan de dana nañ am ñeenti soxna te yow ëppal nga bu la waxee nga ne ko indi dalil ci alxuraan benn ngi noonu ñaar yàlla dana yonent bi mooy yonent bu mujj amul yonent buy ñëw ginnaawam nga gis mu ne la man yonent laa léegi yow loo ko war a tontu beneen bi mooy dañ ne nañ julli mu ne bu leen julli nan woor mu ne bu leen woor lépp lu alxuraan wax waa ji ñëw indi leneen wax dëgg yàlla war ngaa xam ne kii du waaja waa ji mooy ki ànd ak alxuraan nga xam ne li muy wax boo demee ci téere bi da nga koy fekk mu ngi nii kooku bu dee sëriñ sa sëriñ la jàpp ci sa fukki loxo waaye koo xam ne lépp lu mu la wax suba bu ngoon soo ko vérifié doo ko fekk ci alxuraan da ngay fekk sax mu mun a toog ñeme toog ngoon gi yëpp tisbaar mbooloo mi toog du julli tàkkusaan timis ba gee kenn toog yenn saa yi sax mu ne ku julli ji bo ñe wóolu wooñu kon jarutul ngay ñëw mbooloo mi moom ku fi nekk da ngay am kóolute ku amul kóolute nag ci ñun ñi fii nu toog nii ni lii nii def moo gën a foor julli jaru nga fii ñëw wala lool di de- di wax nit ñi musiba ban la ban jaamu yàlla la nit def bu gën a foor julli yonent yàlla Muhammad doon jihaad jihaad jaasi yi dal yàlla mu ne xaaj leen mbooloo mi deux ne ñenn ñi taxaw garde ñenn ñi julli bu ñu paree bu ñu sëlmalee ñi taxawoon ñi doon julli jël jaasi yi taxaw ñi taxawoon di garde julli ci xeex deret di tuuru ay tànk di dagg bopp yi di naaw ñu ne julli leen la ilaha illallah mbokk yi kon dëgg bi biñ ko bàyyee ñun ñëpp ci la ñu alku dëgg bi mooy lii ñu tiim alquran bii lii moo defaroon sahaaba yi lii moo defaroon aboubacar omar ousmane ali lii moo leen defaroon moo tax ñu mun a xam dëgg ba kenn mun leen a nax fu nekk dugg nañ fa ci àdduna ba mbooleem buur bu nekk jàkkaarloo nañu xolal rustum keroog bi amr jàkkaarloo rustum rustum ñu tegal ko ci fauteuil or lalal tapis rouge soldaar yi wër ko ba weñ ñemewu koo tag rustum ne ko bu ngeen ñu woowee ñu bañ lan ngeen di def mu génne jaasi ji ne ko lii mooy nekk suñu diggante ak yéen xool gaa yooyu kii ragaluñu woon parce que dëgg bi dafa leer ci ñoom ne alxuraan mooy dëgg leneen du dëgg waaye sabil al huda alxuraan mooy yoonu njub bi mu waddihan muy leeral tariqa al fawzi wan najaat yoonu texe yoon wi nit di rëcc safara dugg aljanna mais tey ñiy woote fii yëpp da ngay dégg ñu ne waaw ñun yoon bii ñu indi moo gën moo moo moo kii daf ikki ban yoon la nit di indi bu gën a baax yoonu Muhammad ndax nit mën na indi ci kaw suuf nga wootewu ba indi ci kaw suuf lu gën a baax yoonu yoon yàlla Muhammad fan ngay jaar fan fan li gën a li gën a baax yoon wi nga xam ne bu ci nit dug jaaree dug aajana mooy yoon wi yoonu yàlla Muhammad indi woon amul beneen yoon beneen yoon boo jaar da ngay alak sa bopp da ngay nax sa bopp rek ak nag yoon woowu ku ko mën a fent ku mu mën a doon da ngay nax sa bopp moo tax yàlla mu ne wa bayyinaati min alhuda wal furqaan alquran day tàqale dëgg ak fen dëgg gi mooy lan mooy lii la yàlla wax fen gi mooy li nit ki def li nit ki di indi te du du bokkul ci alquran loolu mooy fen bi moo tax mu ne wa bayyinaatin day leeral min alhuda ci njub wal furqaan day tàqale dëgg ak fen faariqan lahum bayna alhaq wal batil loolu nag yàlla fan la mu ne fii kulli suunil xayaa ci mboolem dund gi yëpp dund gi sa dund gi alif ba yaa lépp loo soxla alxuraan leeral la li nga war a def mais tey dañuy jël alxuraan teg ko benn côté jël sunu dund xaaj ko beneen côté maanaam jàpp alxuraan mbirum àllaaxira la du mbirum adduna lan ngay dégg politiciens yi di wax naan politique eggul adduna moo tax lu la neex def da ngay dégg am na ñoo xam ne sax ci ay nitu diine dañ naan su ma la yoree bor fayalu ma fayuma la fii ci àdduna da ngay perte bu ñu demee àllaaxira fee da ngay perte de da ngay perte ah da ngay perte ban dem àllaaxira nañu dégg leen nañ dégg caaxaan yooyu rek ba bañ a lépp nit bañ koo fay ba yaakaar ne am nga benn waay bu nekk àllaaxira yowmal qiyaam dina la dina la solo robb avocat doo fay nit ñi seeni bor wala borom alal yi génn wàll gi fii ngeen di gis yëpp noonu la loolu luñ gëm dañuy liggéeyloo nit ñi duñ leen fay yoral leen ay millions ay milliards soo waxee ñu ne la bu ma la fayul fii àdduna du ma la àllaaxira moom du ma la fay parce que da nga ma dul gis diw laay àndal dugg àjjana waaw moom bu ma la fayul fii ne da ngay perte baax na ba ëllëg yonent bi sala sa alquran ne wa man xalla yaati bi ma xalla yowma alqiyama yonent bi dafa xëy dajeeg sahaaba yi ne la xam nga lu ma leen di wax ñu ne ah mu ne na ngeen moytu bu ma la gis kenn ci yéen mu yenu gëlee mu jàmbur naan ma muhammad yenu gëlee mu jàmbur bi nga nekkee ci àdduna nga sàcc gëleem dem rendi ko lekk jaay yowmal qiyaam yàlla yen la ko parce que wa man xalla yaati bi ma xalla yowmal qiyaama yàlla da lay yen gëleem gi ku la gis xam ne yaa ko sàccoon mu ne yonent bi nag nag su boobaa bu ma seen mukk di ma woo mënuma ci dara gëléem la yonent bi wax de hum, allahu akbar yàlla mu ne faman shahida minkum sahra faman shahida képp ku teew ay xadara al i'lan an ru'yatihi teew nga ca barab ñu ne weer wi feeñ na dégg nga ko faman képp koo xam ne shahida teew na minkum ci yéen as sahara weer wi mu dégg ñu informé ne weer wi feeñ na bu mu ne weeru seytaane la seytaane amul weer bu mu ne weeru ñoom diw la diw amul weer weer wi weeru yàlla benn weer kese la dégg nga feeñ na wooral mais li xew Sénégal mooy da ngay dégg weer feeñ ñu ne noonu ñun duñu woor ñun dañuy xaar ba ñu jox ñu ndigal ba ndigal moo gën a foor ndigal allah subhanahu wa taala bii mu ne faman shahida minkum saara falyasumhu wala lii du ndigal képp ku dégg weer feeñ na falyasumhu loolu du ndigal waaw léegi kon kay ana ndigal bu gën a foor bi wala gars yi lii du ndigal xaaral ma liiraat ko faman képp koo xam ne shahida dégg na teewe na minkum ci yéen asahara weer wi feeñ na yàlla mu ne falyasumhu na woor wala lii lu lii lan la amrun li ndigal la yàlla moo ko wax léegi nag ñun ñu toog dée ne nee déedéet déedéet boobu weer weeru seytaane la moo tax Sénégal foog ñu am problème weeri feeñ Mali Mali gi Sénégal dañoo bëgg yàlla indi leen benn weer ñoom kese ñoo ñu ne waaye yéen waa Sénégal seen weer a ngi nii ñu bind ci sahru Sénégal wala hilaalu Sénégal loolu ngeen bëgg da nga bëgg ñu def Mali Mali ngi ni Mali Mali Gambi mais ñoo bokk benn jant weeri feeñ Mali ñu ne waa Sénégal duñu war weeri feeñ Gambi ñu ne waa Sénégal duñu war am mooy lan Arabie Saoudite sax bu ndee génn weeri feeñ da ngeen war da ngeen war a war islam diinul aalami la nekkul diine ñu naan ni dañuy xaar ñee di xaar ñële weeri feeñ na woor leen yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa xëy ndékki añ benn sàmmkat ñëw fekk Medine ñëpp di lekk mu ne lu xew ñu ne ah ñun de waaruñ de ñun waaruñ de mu ne ah pourtant man démb gis naa weer wi ba ma sàmm jee ci àll bi ci montagne kasa ñu ne ah gis naa weer wi gis naa weer wi yaa ngi dégg yonent bi saa salaam ne ko est-ce que seede na nga yàlla kenn la Muhammad yàlla ko yónni mu ne waaw yonent bi daan ne Bilaal waxal nit ñi nañu woor bëccëg ah fekk nit ñi añ nañ ba pare ñëpp woor ñëpp woor Medine bëccëg kenn waxul ah man ndékki naa ba naa dama koy continuer rek yow fi nekk ni nañ ko continuer rek ah ñooñu dañoo gëm yàlla ñooñu ñooñu ndigal la ñuy xaar jox nañ leen jox jëfe nañ yàlla joxe na yonent bi joxe na dañuy woor ñaari woor mbokk yi almuhimu foofu mooy yonent moo gën ci nit ñi yàlla nëbbu na ko weer yu gisu ko te yonent bi mbiru weer da ko yitteeloon mbiru weer ak mbiru jant gis nga bu ngoonoon jotoon nii ñu war a dog yonent bi daan saxaaba yëg leen ci garabu tàndar may ngeen xool ndax jant bi dugg na buñ ne ko jant bi dugg na rek mun a dog leen da ko yitteeloon kon yàlla subhanahu wa taala nee na képp ku dëgg dégg information al ilaan joxe nañ ndigal information ne feeñ na mu ne woor leen mu ne isa aslama kaafir laylan yéeféer léegi léegi julli gee ñu julli gee ba pare indi benn yéeféer ci jàkka ji mu tuub day woor suba wa balaga sabi yi xale meseur ci guddi gi day woor suba fa alayhima ñoom ñaar as sawmu min gadin ñoom ñaar dañ leen di wax ñu woor suba est est-ce que dañ naan non non kii du wor parce que tey la tuub mun nañ ko bàyyi ba am ay ay fan quoi ndax buñ ko nee na woor rek day xa- day mer quoi daal di génne ci diine bi di ko jéem a yombalal affaire bi déedéet tey jii la tuub léegi gée suba la ñuy woor day ñëw dem sangu ji naafila suba mu ñëw woor xale bi dafa mesure suba bu xëyee day woor gis ngeen lislaam loolu mooy diine mbokk yi beneen bi mooy amma isa aslama kaafir bu dee yéeféer dafa tuub wa balaga alxulaamu fi nahaari ramadan xale daa di mesure ci bëccëgu weeru koor fa innahu yustahabu lahuma al imsak wala yajibu waa ji ci bëccëgu weeru koor dañoo xëy di woor suba ba deux heures waa ji ñëw tuub li des ci deux heures bi ba timis du jot du lekk day continuer koor gi di ngeen li ma wax kee dafa tuuboon ci guddi gi kon bu xëyee kii nag ci bëccëg bi la tuub dañuy julli tisbaar ba pare mu tuub li des ci bëccëg bi du ko lekk xale bi tamit kazalika bu mesuré ci digg weeru koor ci bëccëg bi gis ngeen weeru koor nu mu amee doole xale bi dafa ndékki añ ba deux heures jot mu mesure li des ci bëccëg bi du ko lekk day war continuer léegi nag bu fekkee ñu ngi wax ñii ñu ngi wax ñii ñooy woor ponkal yi tambaambaalu ci ci ci ci ci biir ndakaaru ponkal yi nga xam ne ñoo ëpp Yékini doole mën nañu yëkkati 16 21 di lambar lambari ci dëkk bi weeru koor di ndékki di añ di laye ne ñun dañuy joxe ndogu ñun duñu woor ana yàlla bu nu xoolee bu nu xoolee bu ñu xoolee ñooñu dina ñu yërëm bu yàlla xoolee ñooñu ni ñu baree ci ay jigéen ak góor ay ponkal ay kilifa kenn di woor bu yàlla xoolee ñooñu dëkk bi du yërëm kenn kon loolu mooy koor sunu borom ne waman képp koo xam ne kaana nekk na maridan di feebar aw ala safarin wala mu nekk ci tukki fa iddatun na jël congé min ayaamin uxar ba ci yeneen fan fa alayhi war na ko moom waa jooju alqadaau fay bi adadi ayaam ci limu ay fan allete yi nga xam ne aftaraha dog na ko da ngaa feebar wala da ngay tukki ñu ne la bul woor su koor gi jeexee nag fan ya nga woorul woon da nga koy fay maridan aw musaafiran da ngaa feebar wala da nga tukki da ngay fay juróomi fan la juróom benn fan la ñetti fan la ñeenti fan la da ngay fay mais léeg-léeg nga dégg fii benn musiba naaru laay boo xam ne danaan man man de du ma fayoon teg yàlla fay ah yàlla buur bu gi man de i moo bañ a fay surtout nag jigéen ñi nit ñi naan la yow da ngay fayoon teg yàlla yooyu ay waxu ceddo la laa wax weeru koor ku ci leb da ngay fay bu waa ji deewee sax nekkoon seen famille sa jëkkër la sa jabar la sa papa la sa mag la sa sa sa ki nga xam ne am na bor ci weeru koor da ngeen koy fayal waxuma laak nag kuy dund sunu borom ne waman képp koo xam ne kaana nekk na maridan di feebar aw ala safarin wala mu nekk ci tukki fa iddatun na bañ a woor min ayaamin uxar ba yeneen fan yi yàlla ne yuridu llahu yàlla dafa namm bikum ci yéen al yusra lu yomb yàlla daf leen a bëgg a yi daf leen a yërëm yàlla daf leen a bëgg a yombalal mbir yi yàlla bëggul ci yéen lu metti gis ngeen yuridu llahu bikumul yusra yàlla dafa namm ci yéen lu yomb moo tax mu ne leen bu ngeen di tukki bu leen woor bu ngeen feebaree feebar boo xam ne xam ngeen ne mun leen woor bu ngeen bañ a woor gis ngeen jigéen ji dafa ëmb ragal li nekk ci biir bi ñu ne ko bul woor ndaw si day nampal ragal doom ji ñu ne ko bul woor kon kay islam dafa yomb imaginel ñii ñëpp buñ la ne woon fal force foo jëm xoolal lii yëpp nag ci nu mu yombee nga gis ay tappalekat ay tappalekat ñuy nax seen bopp ñuy war seen bopp waruñu yàlla seen bopp la ñuy war gis ngeen jaamu yàlla bi ko bañ a def naxoo kenn xam nga nu mu mel ku jaaxaan ci kaw lalam di saw dafa ne mu ngi ca duus ba ba mu yeewu loolu la loolu la ku fekkee weeru koor wooroo di layee dama feebar ak damay joxe ndogoog ñun duñu woor ak ñun nangam ak ñun kii ak ñun diw moo ñu ko dindi la diw daa moom dara ba koy dindi lan la fi diw moom ba koy dindi la ilaha illallah benn jigéen dafa sàccoon ci jamono yonent sàcc yonent bi yëg ko ne day dagg loxo bi ñu ne ñu ne ah yonent bu daggee loxo bi day garaaw de ndaw si nga xam ne famille bi mu bokk ñii non nañu fexe ñu mocc yonent bi ñu wax ak moom daal wañ a dagg loxo ndaw si rek ñu yónni benn sahaaba su ma juumalee yaakaar naa Zeyd la Usaama Usaama Usaamatu ibnu Zeyd Usaama ñëw ne yonent ah gars yi day nee nañ ki rek yonent bi bët yi xonq mu ne addunaa ngi tukki Usaama tiit mu ne addunaa ngi tukki yàlla wax ngeen ci ràmm yàlla wax ngeen ñëw naan waaye wala yonent bi fii yàlla wax ñu ne ñu naan diw diw diw yàlla yàlla la ilaha illallah wala ñun war nañ xoolaat suñu bopp mu ne yuridullahu yàlla dafa namm bikum ci yéen al yusra lu yomb wala yuridu bikum yàlla nammul ci yéen al usra lu jafe yàlla nammul ci yéen lu jafe l'islam ni ko yàlla organisé tënke ko yonent bi jàngaleel ko leeral ko xoolal lu nekk rek étape la xoolal aji màkk buñ ne woon ñii même ku munul na ngeen dem de nga ni aw mbaa ñu ne doxal foo jëm wala ñu ne chaque jour aji leen màkk fu ñu jëm chaque jour woor leen julli leen bu leen sëlmal koor leen bu leen dog fu ñu jëm waaye xoole lii yëpp da ngay julli boo sëlmalee ñibbi sa kër tëdd ba mu neex la naan ataaya ñëwaat woor dog aji màkk lu nekk même sarax boo yoroon téeméer ñu ne la bul saraxe lépp waaw saraxel tuuti rek gis nga lépp lépp dafa yomb moo tax yàlla tuddee ñu wasatiya al wasatiya kuntum xayra umma ummatan wa kazalika jaalnaakum ummatan wasato da ngeen nekk ci digg bi nekk lu ñuy ëppal ci digg bi ngeen di yem loolu mooy lislaam ci digg bi waaw mais nag nga nekk ca geen ga ñu ne la nekkal ci digg bi yow nga nekk ca geen ga di layee ne dafa métti loolu musiba naarullaay la yàlla mu ne wala yuridu bikum yàlla nammul ci yéen al usra lu jafe mu ne wali tukmilul iddata na ngeen mottali yéen ñi nga xam ne da ngeen dogoon wali tukmilu ndax na ngeen mottali al iddata limba fan yi ngeen dogoon woor leen ko ngeen mottali wajaba mu ne war na alqadaa u fay min ajli ikmaalil idda ash-shahr da ngaa dogoon juróomi fan ñetti fan ñeenti fan wooral ndax nga mottali li mu weer wi fan weeri fan wala ñaar fukki fan ak juróom ñeent li nga dogoon fay ko ndax nga mottali wala yàlla mu ne wali tukmilu ngir ngeen mottali al iddata lim bi waaye wali tukabbirullaha ngeen kabbar màggal yàlla ala ma hadakum ci li mu leen jubal wa zalika inda itmaami siyaami bu ngeen di wooree ba koor gi jeex weeru koor ngeen gis weer wi ah su boobaa nag ngeen war a dem julli ji julli iit na ngeen kabbar kabbar yooyu dañ koo yoonal mashru dañ koo yoonal buñ nee weeri feeñ na tey guddi gi ba fajar gi yépp dañuy war di kabbar di tudd yàlla subhanahu wa taala wa fihi ajrun kabir ñu ne fay tiyaaba yu rëy moo ci nekk wa sifatuhu melokaan biñ koy defee almashhur bi gën a siiw boroom xam-xam yi wax ko melokaan bi gën a siiw boroom xam-xam yi jàngale ne nii lañ koy defee mooy allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu lii la ñuy wax lii mooy kàbbar yi allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd bu ñu xëyee guddi gi ba bët set ba ba ñuy julli ji ca jàkka ja lii la ñuy wax fan lañ ko teg mu ne wali tukabbirullaha ngir ngeen màggal yàlla ala ma hadakum ca la mu leen jubal la mu leen def ay jullit jubal leen may leen ngeen woor weer yi ba mu jeex ngeen nekk feek seeni moroom ñu yàccaaral yambare yées bañ ko woor yéen yàlla may leen ngeen woor kon sant leen yàlla ci lim leen defal am na ñoo xam ne tàmbali nañ yeggali wuñu la leen tere ñii dañoo dee ñii feebar ñii seytaane këf leen yow nag yàlla may la ba mu jeex kon màggal leen yàlla mu ne wala allakum ndax yéen encore tashkuruna ngeen sant yàlla ci li leen yàlla defal ngeen sant ko farada alaykum sawma farataal na ci yéen wa nadabakum ilaykum takbir mu mu sunnaal ci yéen ngeen kabbar li takunu bi zalika min ashakirin ngir ngeen bokk ci ñiy sant yàlla yàlla farataal na ci yéen koor sunnaal ci yéen ngeen kabbar yàlla may leen li ngeen def ko pour ngeen bokk ci ñi koy sant ala niamihi ci ay xéewalam li anna shukru ndax sant wattaa sant yàlla mooy topp yàlla mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na imalu ala daawuda shukran na ngeen mel comme waa kër daawuda waa kër daawuda dañ doon sant yàlla wa sukuru yakunu bil qalb sant nag xol moo koy def wal lisaan ak làmmiñ wal jawaarih ak cër yi sant ñett yi ñoo koy def waxuma cant yu Sénégal de sant bu yàlla laa wax yéen seen sant li ngeen ci xam mooy rey lekk du loolu du yéen seen sant mooy rey lekk sant bu yàlla bi bu islam bi laay wax man booba tax ma jóg boobu ñu ne yakunu bil qalbi wal lisaan wal jawaarih santal yàlla ci sa xol santal yàlla ci sa jëf ci sa làmmiñ santal yàlla ci say cër loolu la ñuy sante yàlla lii la yàlla wax ne subhanahu wa taala wa laallakum ndax yéen tashkuruna ngeen di sant yàlla boroom xam-xam yi nee nañ as sukru tarkul maasi sant yàlla mooy nga bàyyi mooy yàlla sant yàlla mooy nga bàyyi koo mooy mbokk yi ci gàttal lii moo doon darsa tey li ci jub ci yàlla la bàyyeekoo li ci am ay njuumte ñu ngi koy jéggulu sunu boroom aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh